complètement l'ordre établi parce que il faut chambouler l'ordre établi parce que assemblée nationale damay joxe benn affaire loo xamante ni ñëw na ci jann sigu euh, xalif yi lu mu wax bëri gi dem sax mais war nañ changer ni ñuy ni ñuy fale député loolu xanaa nit ñi képp kuy proposé. ci projet politique mhm. war nga war nga xam ne assemblée kenn foratu koo fal sur une liste nationale. dañ ko war a mm. fal sur d' autres critères yoo xamante ni maanaam dañ dañ ko war a définir. parce que loolu dafa obsolète te loolu sénégalais yi maanaam je veux dire boo bëggee ta xool température sénégalais yi loolu nit ñi dépassé nañ ko se que a day am benn affaire day am situation fu fu réew di toll foo xam ne population bi day dépassé leadership politique bi te je bu ñëwee ci deuxième point bi sur les la coalition peut-être dina fa gën a feeñ mhm, mais foofu toll nañ fa parce que quand tu regardes ce qui se passe dans la réalité ak dans la conception du management stratégique au sommet y a dinañ ci ñëwaat sax. y a un grand décalage et euh, ci inondation yi ci seen responsabilité par rapport à cette mission d'information alors euh, Dame inondation yi euh, répétition ou éternel recommencement bu fekkee ne gis nañu tey li nga xamante ne moo am Kër Massar bu ñu waxee Kër Massar parce que le président de la République Macky Sall demoon na fa le 17 septembre 2020 jëloon fa ay promesses yoo xamante ne terewul Kër Massar ba tey mu ngi ci biir ndox mi yow naka nga ko jàngatee. jërëjëf Arab d'abord euh, man damay marsaw ñi nga xam ne tey wax dëgg yàlla ci suba ba léegi ñu ngi ŋàcc nekk seen biir kër yi muy euh, axe jàmm gën si Kaap Mbaaw bi jàpp caaro yi ak euh, vraiment Kër masaar comme noonu nga ko joxe exemple ak muy Mbuur di Kaolack di tuubaa Touba jafe-jafe yi askan wi nekk woon déjà mu fekk leen ci jamono joo xam ne suukar amuloon ñu xëy yokk ko ba kenn munu cee jot Euh, dawlin yokk ceeb yokk lépp li ñuy dunda yokk askan wi nekk ci jafe-jafe yu rëy rëy lii ñëw teguwaat ci seen kaw ci loo xam ni ñoom nguur gi ñoo taxaw ñu doog leen a fal en 2012 ñu taxaw ne dañoo am mébatu jële ko fi ci fukki at jël suñuy milliards ñun parce que il faut que nit ñi arrêté naan milliards yi Macky Sall Sall amul dërëm ndox mu muy ñaan naan ca pale ba sax sunu alal lañu senegale yi lu mu lekk ca pale ba moo kii ay euh, euh, ñam ñam ñam nekkal ay ministre mag leneen ak leneen ci alalu askan wi la ñuy jël di leen ko jox loolu c'est important kon ñun ñoo am ñun ñooy liggéey ñun askan wi di leen yor ñoom kon mu jël lu tolloo juróom-ñetti euh, téeméeri milliards milliards il faut ñu wax sénégalais yi ñuy déglu que buñ koy lim Sénégal dañ koy ñàkkal fayda milliards mooy Fatou Abdou junniy million maanaam ngay jël ay millions. di wàññi ba mu nekk junni loolooy benn milliard. ñu tegal ñu jël ci lu mat juróom-ñetti téeméeri milliards yooyu lu ko jege lu ko yeesu si lëf ñu jël ko dugal ko ci loo xam ne nag dañ ko fiy jëlee ci fukki at nga dem ba toll sa juróom-ñeenteelu at la nga doon xeex yow d'abord ay jamono jëmu njëkk am yaa ngi nekk fii premier ministre dugal jël say bot man tenue tri ba ba Macky Sall soloon sax comme tey ci man sol ay botam dugg ci biir ndox mi booba mi ngi nekk premier ministre nga tey nekk président de la république dige lu toll noonu jël sunu alal ju toll noonu def ko ci tey jii à leur du bilan parce que juróom-ñeenti at ci fukk presque jeex na ñu taxawati ni mbënn am na d'abord damay wax ni du mbënn parce que dara ballul taw la ay waame ci ñi dégg wolof waame ñaari waame yu tegaloo lan am rek ndox mi nangu mbedd mi ak kër yi ci gox yu bari Sénégal lii moo fi xew mais du mbënn ndox mi jógewul ci suuf si ci taw bii dong la jógee ay ay système mu taataan kese lañ leen defloo woon ci sunuy milliards defuñu ko kon dañoo tooñ askan wi. président de la république nag dégg naa waa banlieue bi naan bu daan am président bi day génn man leen mag Sall ñëw la dugg ci banlieue bi tey ñëw faa dugg ay ministres ñëwuñ faa dugg parce que askan wi mere nañ leen. ah oui askan wi dinañ a mere parce que lañ digge woon tey heure bii Farab dafa waroon fekk ñu ni au moins parce que gis nga tant que li ngay def dar dar la ci fekk da ngay def la neex. maanaam la fait dara fekku leen ci ay ati ati at ñu koy digee te dara fekku leen ci d' abord kenn évalué wu ko pour xam ñaata lañ def ci xaalis ci sunu xaalis ñun askan wi kenn du ci wax at mu ne bu ñëwee rek ñu wax ci ku ci ne def ci émission sénégalais yi taxaw kaas takk seen i brassard rouge ñëpp taxaw wax ñu génn ci ba xaarati déwén léegi nag man dama jàpp ne jot na nag ñu jël heure bi daa waroon a fekk ñu ne tekki nañ ndomba tànku Omar Gueye tekk nañ heure bi fi mu toll waroon a fekk ci waxtaan wi dañ ciy boolewaale nit ah décret bi de wadd na tekk nañ ba tànk Omar Gueye ak Serigne Mbaye Thiam. parce que oh Omar boobu ngay wax dégg nañu ko euh, sur la RTS. ca laa euh, jëm moom may rek jëm ca laa jëm waaw 90 pour cent def nañu ko bërki la loolu. Mm-hmm. rien tous les soirs la dem bërki démb boo Njaay ba mu demee lu mu fa wax. Euh, ba mu fa demee non loolu man maa koy assumer léegi ba mu fa demee lu mu fa wax dani pour Kër saar parce que au moins yeneen gox yi sax ci xaalis boobu mu fi lim foofu la jafe-jafe yi nekk mais Kër Massar au moins. ñoom bi ko defee département ak léegi yàggul comme ni nga ko waxee léegi ñu nii dañuy waajal pour que mbënn mi daan am Kër Masaar moom dootul am mu ni fukki milliards ak juróom lañ ci def moom Omar Gueye moo ko wax. barki Demba Ndiaye la mais Omar Gueye dina fi wax lu rëy noonu moo tax sax ma ne moom daa tane Kounkandé lu mu tane Kounkandé yow barki Dembo Ndiaye nga fi wax ni fukki milliards ak juróom laay jël def ko ci Kër Massar Kër Massar dootul inondé. waaw munoo comparer Koukandé ak Koumba Gueye aussi ah. que Koukandé yi waxi dof yi mu la intéressé. def laa gën a mën a nangu li Omar Gueye def xamul tax parce que conséquence ñoo yamul non non conséquence yamuñu Omar Gueye. dafa gëmloo waa parcelle euh, waa waa waa Kër Massar ni leen. jël naa fukki milliards ak juróom def ko ci à euh, ce plan de assainissement globalement mooy waajal mbënn ba mbënn dootu fi am ba nekk booy tabax sa kër sax man am na précaution am naroon jël da nga naan non jeex na dootul amati kon yàqal na nit ñi seen alal dugal nit ñi ci jafe-jafe ñu nekk ñoom te moom moo leen gëm la woon ni jeex na kon kay kooku mënu ko comparé koo xam ne waxi dof la wax rek moom Kounkandé sénégalais yéen ñi gëm ko kon nag man ñaari bu ma ko jëlee dama ne Omar Gueye heure bi waroon naa fekk ñu dàq ko bu yàgg ba heure bi daa waroon a fekk moom jël nay bagaasam bañ naan non léegi Macky Sall kan la teg beneen bi mooy munoo euh, at mu nekk comme ni koy waxee ñuy ñu ñu ñu yàq suñu alal ju toll noonu te kenn du ko évaluer nit ñi di dund ci ci ci ci biir ci biir jafe-jafey askan wi askan wi nekk ci jafe-jafe ah am ñu ciy dund ah parce que gis nga ni ñuy dundee ci corona bi noonu lañ dundee ci euh, euh, ci mbënn mi comme comme ñëpp noonu lañ ko tuddee ci inondation yi noonu la ñuy jël alalu askan wi di ci tabax seen immeuble di ci gutaandaat au moment wu askan wi amuñu la ñu lekk te aujourd'hui fi ñu doon xaar président de la république mais ñaat lañ fi gis ñu reporté fay élection pour mbënn léegi mbënn mi am na kenn du wax leen tam yor un gouvernement pléthorique de ministres kenn déggagul mu ni loolu da ci wut solution pour dindi ministre yooyu pour que alal jooj mu fa naroon def mu dimbalee ko ñi nga amuñu fu ñu fu ñu toggee seen seen añ amuñu fu ñu toggee seen reer heure bi waroon na fekk ñu naan daaneel nañ la au conseil des collectivités territoriales au moins jëlee nañ ko parce que amuloon njariñ sénégalais koo ci laaj mun la xaw ma sax kan moo koy jiite boo heure bi waroon na fekk ñu ne conseil euh, conseil économique social et environnemental daaneel nañ ko ndaxte alal jan fa mën nañ koo jël dugal ko ci mbënn mi man jàpp naa ni instant bii au lieu mu nekk ca pale ba moom président Macky Sall di réunion loolu lan doon xaar ci moom. mu jël décision yi forte. qu'il y ait des mesures fortes parce que jafe-jafe bu amee ci réew askan wi li ñuy xaar ci yow mooy nga jël des mesures fortes mais doo toog ce pale ba dajale ay kilifa yoo xam si jafe-jafe yooyu ñoo ko andi. ba noppi nga toog wax a wax bu subaa ñu génne seen communiqué waxati ay milliards yoo xam ne kenn du ko évaluer bu ko defee askan wi ñoom di gën a nekk ci ndóol lool. jàpp naa alors war nañ cee jóg c'est clair dame bu ñu bu ñu gisee euh, que euh, mbënd saa bu amee réunion moom mooy am palais réunion boo xam ne dañ ciy déclencher le plan Orsec mais est-ce que plan Orsec ñu di ko déclencher euh, li ñu wax naan kenn du ko déclencher sax mais waruñu di ko taxawal balaa ñu doon dugg ci inondation yi pour ñu mën a xam ne bu ñëwee rek ñu mën a am pexe moo xamante ne dañ ci mën génn. waaw man de li ma jaaxal mooy mbir mi dafa tawagul dara parce que ñu ñun ñaareelu taw rek ci lañ nekk de je crois que tawagu fi taw yi mu fi tawoon taw moom tawagu ko fi. Mhm. donc su fekkee ne déjà deux plus yi mu fi def nii nga xam ne vraiment à géométrie à variable moo indi lii le problème c'est pas un problème du problème mu mbënn daa daa daam wax nu ko léegi c'est-à-dire ñun on un problème d'évacuation des eaux c'est-à-dire suñu ndox yi ci boppam lañ xamul fan la ah, war a mën a jaar fan la war a mën a jaar ba egg.